di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifati al aam li tariqatin al muridiya al seyx muhammad al muntaqa xafidahu llahu alqadiru al muqtadir wa ayadahu wa nasar wa razaqahu wa satar wa rahima salafahu wa gafar lahum wa li kulli man anaaba ila rabbihi wastaghfar di di kàddu yum jëme ci mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi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 bindu nu andi nu fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay tereem loolu kat la sëriñ Tuuba bëgg ci nun te moom lanu sant ijmaalan wa tafsila ndax mooy sababu ak mucc ëllëg te moom lanu bëggal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 فكثرة العلم بغير أدب جالبة إلى الأذى والتعب نان ما سخمن أدنى بدكواي جارو ركلا دي تول يوني رك كون دوكرو فو دوكرو نوبلو نان تك سون كانام واخي سونو جي تي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون gannaaw bu yàlla maye doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf ju baax ak ju bon ak kàttanu tànn li ko ci neex mu def dana yonente bi neel nit ñi def leen lu leen soob lu ci waaye tànn def ko moo xam waaye ak lu man di xew yàllaa ngi gis seeni jëf daa iman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 fetli na ko faneen sax wax ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara ku def dara lu toll ne la la tuut ci li tuut ci lu baax dana ko gis ku def lu tolloon ci saan bi itam dana ko gis te looloo taxoon sëriñ bi doon wax ne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 يلنو يلا إنه تعالى مولاي ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير وهو قريب وسميع وبصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير دينتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خير طيب ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد